damay sant yàlla bokk ci liggéey bi loolu la sant yàlla bokk ci liggéey bi loolu du ma wax affaire yi matériel rek damay sant yàlla bokk ci liggéey bi loolu rek la am lu ma lu ma lu ma mën a wax parce que xalaatu moon sama dina bokk ci lu mel nii yàlla ba ma dajanteeg moom mu wóolu ma jox ma lépp li nga xam ne rek mooy nit lu ma def rek nee na ma bul ma sax laaj defal xam nga li baax def ko donc ba tey ji ma bokk ci rek bokk ci rek waxuma sax di def sono waaye bokk ci rek musuma koon xalaat ba yàlla def tey li muy def lu gërëm ko rek te xam ne li ci kanam ñu ngi dem ba ci kanam incha allah bi def naa 29 ans quand même de carrière ci wàllum sonorisation euh, fu nekk ci àddina dem naa fa di ko jàng di gëstu di continuer di gëstu tous les jours yàlla di ma def may ñaan chaque jour dama daan dégg mosquée yi ñu julli mais dama doon ñaan benn jour ma am possibilité déggaay bi du ma ne sax li ñuy def baaxul ay déggaay bi xaw a changé yàlla di def. may dem lu nekk si bëgg-bëgg mais aw moon possibilité xëy na yàlla def ma ma am ko bay mu gis ma rek li li li dox sama diggante moom kenn mënu koo wax kenn mënu ko parce que dama ko gis muy wax waxi sëñ Touba ma toog di ko xool rek <laughs> di ko xool di ko xool di ko xool topp ko c'est ça donc c'est c'est c'est nag ñu fi nekk ñëpp ko liggéey ay Sénégal yi amul benn tubaab bu ci laal kenn laalu ko yëpp ay Sénégalais ko liggéey ay jeunes des très jeunes Sénégalais ñoo ko liggéey ba tey jii ñu koy si lu toll nii euh, te di ñaan di ko gën a yokk te di ko def tamit ci jumaa ji <laughs> jumaa bu mu tax loolu moo ma gënal moo nekkoon mooy kon ne di liggéey ci ci wàllum jumaa ji rek loolu moo ma gënaloon si sama àddina te gëm naa ni que euh, avec son appui aujourd'hui lu bëri dina changer en terme audiovisuel ci wàllum sonorisation wu euh, jumaa yeeg ak lépp yi nga xam ne lieu de culte loo xam ne dañ fay wax wax yàlla donc loolu daal laa xam ni mun naa ko wax léegi nag la technique c'est assez long tu comprends pour que ñu toog di ko expliquer mais xam naa bu ñu demee ba ci kanam ci yeneen jëm jamono dañ ko mën a expliquer peut-être dañu ànd ak yéen ci beneen liggéey boo xam ne ci wàllum jumaa la dañ mën a xam détails yi si nekk yëpp quoi daf maa njëkk yónni Touba la ngeen xamul daf maa yéen njëkk yónni Touba ma dem Touba fekk fa sonorisation bu xaw a euh, bu léger un peu am tuuti jafe difficulté bu ndaw mais bi ma fa yeggee moom dafa ma fa yóbbu ma yóbbu fa ay bagages bi ma yeggee ah, fekk fa ay nit yi nga xam ne dañu ils nit yu baax ànd ak man ñu dugal fa as tuut li ñu amoon pour jàppale jumaay Touba donc tey jii du loolu moo ñu moo ñu parce que fii mooy Touba rek tu comprends lu ñu ma sant fii loolu laay def Touba lu ñu ma fu ñu ma woo ci wàllum liggéey bi dama fay dem def ko ndax gisuma lu ko gën a rëy gisuma lu ko gën a rëy li ci kanam nag moom xam naa ni mu ngi ci kanam am na institut am na jumaay Touba am na yeneen yoo xam ne bëgg nañu pratiquement mu mel nu mu ni ni Massalikul Jinaan mel incha allah bu ko rawul sax. loolu lay wax tout le temps na ma ne jumaay Touba sax liñ fa nga def xeyna mo gëna <laughs> reuy li ne fii na avant lii dama nekkon ci ginaawum ginaaw yusu di liggéey ci walum limi yëngu yalla di ma tamit def na ci technologie bi ma fay def lu mo war def yépp ba yalla di woné wane mu ñëw si kër yonent bi ci ci yalla yi may nekk di liggéey ni il fa ngeen gëm ni que euh, euh, amul mbekté bi ma bi mu bi mu sama téléphone bi mu sonné moo ma njëkk a woo après pa bi woo ma donc bi ma wooye daf ma doon woo pour féliciter ma di xalaat parce que yàgg nañu wax damay dama lay wax li nga xam ne moo am na yàgg nañu wax ci wàllum sonorisation yàgg nañu wax ci wàllum loolu yëpp yàlla def na ko ba tey jii man ma doon rakkam di ko def lu dul bégte sama yaay sama pap lépp li nga xam ne dama ciy dugg xam nañ ni que fayda laa ciy dugg te du musuma nekk ci beneen yoon bu dul yoon bi nga xam ne moom lañ ma sant li ñu ma sant rek laay def man xaw ma leneen lu dul liñ ma sant te liggéey donc laay def ma leneen loo xam ne rek yëgal na ma sama àddina lu dul liggéey su ma xëyee suba ba ngoon loolu laay def mm-hmm. et je continue à faire te ñoom ñëpp ànd nañ seeg man amul kenn samay sœurs yi samay ku ci ne daf may woo di ma ñax bëgguñu ma sax déranger bëgguñu ma sax déranger bi parce que xam nañu ñun ñooy xam nañ tur bi xaw na sori mais bëgguñu ma sax déranger bi nga xamné ci limay def té xamnañ ni que fu ma fekk fu ñu ma fu may bàyyi rek ak peut-être li ñu ma xamee ci ci walum liggé rek lañ ma ko lañ lañ ci lañ xam ci man donc ñom ñëpp daal kontaan nañ ci yëf yi té euh, defe naa euh, amul ma ci benn rek kenn ko xamné rek mën na ma ci wax loolu lu di ma ñaanal ba paré di di wax ni que euh kontaan nañ may liggéey ci négu yalla bi nga xamné mo fi nek té vraiment je suis très très content et bon mënu maa def lenn lu lu sut lii ci adina nga ñëw fi liggéeyal Serigne Touba na le wor wor yalla ni yalla dina lako fay na le wor wor yalla que sur le plan religieux mystique sa wa keur gep yaa ci sen kanam te nak je le dis télévision yang koy jël ndax li nga liggéeyal Serigne Touba sa famille yu ndey sa famille yu baay seeni maam seeni maamaat yëpp xat nañu ci bir te c'est grâce à toi sa wërsëg la nak sa muur la yalla na la jik kontaan na lol, lol ci yow buma ma ko waxee bu ma ko waxul Serigne Touba am gis bi neex na dégg bi neex na te ton travail ne s'est pas limité simplement. Ton travail ne s'est pas limité simplement à la vidéo. Le réglage de Yawon avec le son mon radio yi ak télévision bi yaa ngi ci lumière yi maag a ànd ci barrière yi ñoo ànd porte yi bi ma dessiner man cinq heures du matin kon yow ta main dans la mosquée waaye na la bir ni Serigne Touba mi nga liggéeyal dina la fay barke Serigne Touba si la fayee nag ñëpp nañ ci sa famille sa famille parce que réussir ça n'est pas évident Ligne j'ai fait toutes les grandes mosquées Mais ma lay photo la mosquée bleue une la sonorisation le jour et la nuit et tu l'as réussi je tenais à venir là te trouver là féliciter le féliciter sa équipe yëpp tàmbalee ci ñom Tanor Lamine ak xalé yi ñu ko bokkal yëpp parce que ça fait un an pratiquement ken ne la wutul goudi ken ne la wutul bëccëg et tout est impeccable jërëjëf yàlla na la Serigne Touba fay.